mbokki internetu Feeling Dakar ñi ngi leen di nuyu comme ni ñu koy defee saa su nuyoo gi gën ci nuyoo yi di asalaamaaleykum wa rahmatullah tey nag ah, ñi ngi fii ci caaro Caaroy Lamsaar ah, gisoon ngeen ah, xale bu jigéen bu am toll woon ci fukki at ak ñaar tu mere Ndiaye moom dafa réeroon ay waajuram waaye suñu mboroom def na ci jàmm ba dellu si waat na ci ay loxo waajuram ci jàmm ak salaam mi ngi demoon nag ci datu le 13 août bi ñu génn ba léegi bërki démb lay doog a ñëw ñëwoon nañ fi ñun ba waa Feeling ndakaar ba gis nga liggéey boom solo bi nga xamante ne def nañ ko ci waaye suñu borom ànd na ci ak ñun ak ay juróom ci seen bëgg-bëgg ak seeni ay ñaan ba xale bi dellusiwaat si seen i ay loxo yaayam la ñu toogal duñu def dara rek dañu koy bàyyi mu nuyoonte ak mbokki internetu Feeling Dakar maman ñu ngi lay nuyu. di fay di leen sant di leen gërëm maa ngi nuyu ñëpp nuyu mbokk yëpp. dëgg yàlla ñoom ñoo ma jàppale dimbali ma taxawuma ba sama doom feeñ. ndax dëgg yàlla ñoo ko wane fépp ñëpp gis ko ñëpp seetaan ko ba sama doom feeñ yàlla indiwaat ko ci jàmm ñu ngi sant bu baax di leen nuyu di leen ziyaare yéen ñëpp ak képp koo xamante ne amoon nga ci tànk di ci taxaw di ko ñaanal pour mu ñëw maa ngi leen di sant di leen gërëm maman comme ni nga ko waxee noonu rek ñu ni tamit ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax waaye mère sa doom demoon na te suñu borom andiwaat na ko ci loxo est que mun nga ñu wax ci yan anam la dellu si waatee. Euh, yan anam la dellu si waatee moom daal bi mu réeree dafa gëlëm di dox nag di wër sans benn kër xarit buñ naan caan ndaw kolobaan la nekk. bi mu koy wër di ko wër ba mu yàgg taseeg benn meer nee na meer boobu moo ko for yóbbu ko këram boobu ba tey nag moom nee na mu yàgg fa loolu waaye instant boobu yëpp xamutoon fu mu nekk ndax dafa gëlëmoon ndax dafa gëlëmoon léegi am un jour mu ne maire bi mu ne maire bi euh, liiwal ma yóbbu ma fi ma dëkk maire bi laaj ko fu mu dëkk mu wax ko ko maire bi ne ko xaaral dinaa la yóbbu nee na ne li mu toog foofu yëpp wax dëgg yàlla amu fa benn problème amu fa benn problème ci noonu nag ba ci samedi bii paase la toog ba mu yàgg nee na benn rakku jëkkëru maire bi yóbbu ko police ñooñu yóbbu ko amphi des enfants bi nekk euh, Médina fa lañ ko yóbbu wax dëgg yàlla nag ñu wooñu ci guddi gi ay dix dix parce que man dix heures laa ñibbi sama kër ma toog ba ay onze heures yooyu ñu wooñu téléphone nañu meer a feeñ na dëgg yàlla bi ñu ma woowee téléphone ma génn sama magu jëkkëri ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñu génn dëkkandoo yëpp génn ñëpp kontaan ñoom tamit amoon nañ mbégte mbégte woo xam ni di jooy di jooy ndax seen xol moo fees ndax yaakaaruñu woon ni lu mel nii dina am tamit doom yu bari réer nañ ñenn ñi gis nañ leen ñenn ñu gisuñu leen wax dëgg yàlla tamit yéen tamit ñu woo leen ngeen lépp loo xamante ne moom ngeen mën ba sama doom feeñ maa ngi sant yàlla di sant waa police boobu di sant tamit ñooñu nga xam ne ñooy ñi nga xamante ne ñoo yor xale yu réer yi maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm dëgg yàlla mais bu muy demee ba ñëwaat bi ngay waxtaan ak moom yan explication la la jox ak naka la dem parce que yaa ngi doon wax que ni dafa amoon xew bu mu demoon seetaani après par moom nan la def ba ñëwaatul ci kër gi dafa gëlëm wala. moom daal xew bu demoon seetaani dafa demoon ci benn xew suñu kanam bi nekkoon suñu kanam noonu dem seetaani ba yenn heure yi léegi mu ñibbis muy ñibbisi mu muy ñibbisi fekk man maa ngi ko doon woo pour mu ñëw. mu taseeg ay xaritam ay xaritam ne ko tey nga dee sa yaay da lay doon yor na nga ndam yette loolu amut. xaritam yi ñoo ko tiital mu daal di tiit dem nag dem ba xamatul fu mu jëm daal di fekk bi muy dem mi ngi yoon yor 1500 ak li ma jotoon a jaayal ci mango yóbbaale ko. taxaw foofu pourquoi la pourquoi mu tiit moom d'habitude dafa dafa dafa la ragal da nga koy tiital wala des fois da koy yar comme di dóor xale wala ba tax mu mën a daw bëggul ñëwaat. des fois nag moom bu defee dara dinaa ko dóor ne ko bu ko defati mais tamit ak xaritam yi xëy na moom ñu ko tiitali ñun loolu sax après yëguñu ko woon après lañ yëg loolu xaritam yee ko wax loolu ba mu daw waaw bi mu feeñee ñun ci lañ ko yëg mais man yëguma woon kañ la ko xat tax mag moom ñu tàqali ko te bi ñuy tàqali ko maa ngi yëkkati 1500 jox ko. mu ne ma Adja de man bu ma xiifee dinaa ci jënd lu ma lekk ma ne ko waa boo xiifee nga jënd ci loo lekk kon kooku yaayam gis na ko ba koy dóor après ci laa ñëw guddi gi di ko wër ci samedi bi wër ko ba sonn gisuma ko ma ñibbis ma dem ñibbi sama kër ba ci ëllëg sa la mi ma ñëw laaj suñu waa ndax meere fii la fanaan ñu ne ma fanaanu fi ci laa xëy na commencé di ko wër ñoom tamit leeraluñu dara di ko wër di ko wër am un jour sam benn xarit caan bi mu seeti woon ko la Colobane mu ne ma gis na ko côté Tilène ci vendredi ci je jeudi bi. léegi ci jeudi bi moom ci vendredi bi lay door yëg ne xale bi dafa réeroon. mais bi daje naag dafa réeroon. xale bi dafa réeroon mais bi muy dajeeg moom mi ngi ko fekk muy dem marché neena na mais dafa ànd ak keneen waaye mu wax ko ki mu àndal ki mu àndal feneen la taxaw moom mu taseek moom woo ko ne ko kii du diw mu ne ko enquête mais ba tey waxu ko waxu réer waxu ko damaa réer waxu ko dara. waxu ko damaa leen waxu ko dara après ci la nekk na bi même bi ko maire bi bi ko bi gisee da doon wër sama kër xarit bi wër ko ba sonn gis ko maire bi taseeg moom yóbbu ko këram boobu ba léegi mu ngi ci kër maire bi ba ci samedi boobu lañ ko indi police euh, xaw ma nag police kat bi nekk euh, Médina police quatrième bi nekk Médina fa lañ ko yóbbu après ci la ko yóbbu empire euh, des enfants bi nekk côté yooyu kii nga xamante ni moom moo foroon meera wala moom moo ko téye woon est que gisante nga ak moom wala ngeen déggante. non boobu ba tey gisante wu ma ak moom. boobu ba tey gisante wu te déggante wuñ ko indi ci police tamit gisante wu ma ak moom déggante ak moom. da xëy rek ñu woote ne ñu woo ma ne ma feeñ na mooy fi ñuy téye xale yi. ñooñu laa gis. woo wala sa borom kër la ñu woo. sama sama sama téléphone borom kër la ñu woo ñu jot ma. fekk sama borom kër dafa génn ñu wax ma ko ci laa génn di ko suñu waa kër ñoom ñëpp nag jaxasoo ñu nu ñuy def man tamit gëw ma ko ma solaat sama daal ñëw ba suñu kër ndax suñu waa kër ñoom suñu waa ñoom la ñu woo ñoom ñoo ñu woo léegi après ci laa ñoo ñu jox ma kayit bi nga adresse bi ñoom moom fi mu nekk ci la ñu xëy dem jëli ko man ak sama boroom kër. léegi moom bi mu réeree demoon nga police nga def déclaration. ñoom dina am papier bu ñu lay jox mais bi xale bi feeñee est delluwaat nga police. démb démb laa fa waroon dellu ñu ne ma yéen da ngeen fii ñëw ma toog di leen xaar ba yenn heure yi de ñi après ci ngeen ñëw noonu tey jii tamit bëggoon naa fa dem mais taw bi tamit moo ma téye woon. damay bàyyi ba suba ba mardi bi su ma xëyee ma dem fa ndax def defoon nañ déclaration ñetti police police euh, yi ak police Sicap Mbao après police centrale bi police bi nekk centrale laa mujjee ndax ñoom nee nañ ma xale bis bu feeñee nag ñu ko ëndil ñooñu sama benn mag bu góor gendarme la moom ma boole ak ñoom voilà. léegi xale bi mu feeñoo dellu siwaat say loxo donte jigéen la est que yóbbu dem nga ak moom ci kër docteur ñu xool ko walla. waa ñoom moom moom fi mu nekk moom am na kër docteur man tamit laajtewu ma leen ndax xool nañ ko walla xooluñu ko waaye moom xale bi dara dalu ko. dara dalu ko dëgg yàlla amul benn problème mu ngi ci jàmm amul benn problème daal. nga am sa doom bu jigéen mu dem pendant vingt jours mu dellu si waat dëgg la mbégte mais pour ki lay seetaan mbégte bi fu mu toll. ah mbégte bi wax dëgg yàlla moom fu mu ma toll moom mënuma ko sax wax doomu aadama ndax man yaakaartuma woon ni sama doom dina feeñ ndax rumeur yi may dégg chaque jour nga dégg jox xale yi niñ leen di def. aussi tamit ak nit ñi wax ji ku nekk yaa ngi ciy indi sa xalaatu bopp ñi naan dañ koo tëyee dugal ko ci sous terrain ñi naan dañ koo téye dugal ko ci ay garab yu lëndëm yu kenn xamul. daan nga dem ci ay sëriñ maanaam ñu naan la xale bi nekkul ci jàmm wala. dem naa ci sëriñ nag moom wax dëgg yàlla dem naa ci sëriñ yu bari fu ne dem nañ fa ci sëriñ mais ñe ñenn sëriñ yu bari nee nañ ma xale bi dina feeñ te mi ngi ci jàmm mi ngi lekk mi ngi naan. ñaar ñoo ma ci wax xale baa ngi ci fi mu nekk dafa dafa nekk ay moroomam suuteen la dafa lëndëm ñeneen ñi tam beneen sëriñ tamit sama yaay woo woowaat ko kooku ba mu ko seetalee pare kooku ne ko xale bi fi mu nekk ci ay garab yu lëndëm la wetu géej ci ay garab yu lëndëm la loolu tamit nag gënoon maa tiital jour boobu lekkuma naanu ma jooy naa jooy yoo xamante ne man jaaxaloon na ma ndax duma ko weddi ndax lu ñaaw li li ñaaw li am Sénégal moo tax ndax ku ne dégg na lu ne dégg nañ ko Sénégal lu ne dégg nañ ko doomu jaamu yi ñuy jàpp di leen def na ko dul noonu dégg nañ ko fi am paggaay du jeex du xaaj loolu tamit moom ma gënoon a tiital tamit aussi sëriñ yu bari nee nañ ñu ngi doon wax ak sama yaay naan ko xale bi dina feeñ mi ngi ci jàmm mi ngi lekk mi ngi naan amul problème li ma gën a li tax nag ma gën a dal mbokk yi ak dëkkandoo yi ñoo ma gën a dal ñoo ma gën a dalal maa ngi sant yàlla daal bu baax en tout cas mbég amoon naa ci mbégte trop. mbégte trop wax dëgg yàlla amoon naa ci mbégte. léegi nga am sa ay ay ay nawle sa ay moroom ñu jur seeni ay doom amaana yow suñu borom defal na la tawféex ba andi raatal la sa doom te ñoom gisaguñu seen doom lan nga leen di wax. ah xanaa jaar fi ma jaar rek bañ a toog bañ a tàyyi toog bañ a ndax sama doom bi mu réeree moom ku ne def na ci loo mën surtout Dakar aw ma seen fay vraiment aw ma seen fay. ndax wax dëgg yàlla bi ñu ñëwee def émission bi ak man benn fan lañ ci teg sama doom feeñ benn fan lañ ci toog amoon naa ci yéen yaakaar trop te tamit wax dëgg yàlla maa ngi leen di wax ñu jàppale leen ndax yéen tamit yéen a ngi def liggéey boo xamante ne liggéey bu am solo la ci réew mi liggéey bu am solo la ci réew mi yéen a ngi jàppale doomu aadama yi bu baax ndax man tamit tiitoon naa jaaxle woon naa trop ci sama doom message bi bi ngeen ko laasee ba ñëpp dégg ko moo bàyyi moo tax sama doom feeñ ndax ñu bëree ko seetaan ñu bëree ko seetaan vraiment dëgg yàlla aw ma seen fay dañ leen jàppale képp koo xamante ne sa doom feeñ sa doom réer na maa ngi lay ñaanal nga gis ko ci jàmm ndax doom dafa sax ci xol doom alalu yàlla la doom dafa sax ci xol maa ngi leen di ñaanal tamit bu baax aussi maa ngi leen di ñaanal ndax ginnaaw yàlla ak yonent bi sama doom yéen tax mu feeñ tax dëgg yàlla yéen a tax mu feeñ yéen a ko yóbbu fu ne ba ñëpp dégg ko ba yàlla indiwaat ko ci jàmm maa ngi leen di ñaanal bu baax yàlla jëmale seen liggéey bi kanam yàlla jàppaleen ngeen ubbi seen i télé télé télé télé ndax ku jar a jàppale ngeen ku jar a jàppale ngeen ginnaaw yàlla ku jar a jàppale ngeen wax dëgg yàlla maa ngi leen di sant di leen gërëm vraiment acca moom itamit ñu di ko jaajafal bu baax a baax a waaye tamit di jaajëfal si nga ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñu ay internautes ah ñi nga xamante ni ñoom bu ñu gisee video bi rek eh, partagé nañu ko ba li nga xamante ne suñu borom def na ko ci tey yàlla do def ko ci tey ñu muy muy mbégte boo xamante ne am nañ ko ki nga xamante ne moom mooy Mère Ndiaye toll ci fukki at ak ñaar réeroon ay waajuram ci datu la le le le 13 août. Ah, dellusiwaat na cee ay loxo waay waajuram ci jàmm ak salaam kon ñeen ñi nga xamante ne yéen tamit seen ay doom dem nañu gisaguñu leen bu leen tàyyi bu leen tàyyi benn yoon fépp fu ngeen xamante ne mun ngeen fa dem wala lépp loo xamante ne mun ngeen ko def rek def leen ko suñu borom mi ngi fi yàlla gëmul nelawul ah te ñi nga xamante ne tamit dañuy jël ay doomi jàmbur di ci def naka sudul noonu ñooñu tamit yàlla na yàlla weer maire Ndiaye moom i tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom bàyyi ko fi mu ba yaakaar bi nga xamante ne am nga ko ci moom suñu borom mottali ko bu baax a baax lan ngay tàggatoo ak mbokki internet yi mbokk internet yi maa ngi tàggatoo di leen sant da leen gërëm du ma ci tàyyi di ci wax man awma seen fay xaw ma sax lan laa leen di faye yàlla xam na ko maa ngi sant ñëpp ak képp koo xamante ne dégluwa message bii def ci lépp loo xamante ne mooy sa kàttan ak sa mën-mën di ci woote di ci yàq sa crédit woote di jël sa connexion di ci yàq di woote maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen tamit wax dëgg yàlla man awma seen fay ndax fu ñu leen woo ngeen dem tàyyiwu leen sonnuwu leen wax dëgg yàlla nekk ngeen nit ñoo xamante ne nit ñu jàmbaar ngeen nit ñu jar a jàppale ngeen nit ñu jar a bàyyi xel ngeen ndax yéen a ngi def liggéey bu am solo ci réew mi yéen a ngi def liggéey bu am solo lépp lu nëbbu woon yéen a ko feeñal dëgg yàlla lépp lu nëbbu woon rek feeñal ngeen ko maa ngi leen di sant di leen gërëm maa ngi sant dëkkandoo yi di sant xarit di sant mbokk yi ba ci ami lay postu caare kooku amul lu ma taxawle kolle jaak ba ci suñu waa kër samay njëkke samay wujj go aw ma ci kenn fayam aw ma ci kenn fayam wax dëgg yàlla maa ngi sant dëkkandoo yëpp mbokk yëpp ba ci tàkko fi fay mii sama magu yaay sama rakku yaay bii maa ngi koy sant di ko gërëm aw ma fayam moom tamit vraiment dëgg yàlla maa ngi leen di ñaanal di leen di leen masawu tamit ci lii ndax sonn ngeen ci trop boobu ba léegi fu ñu leen woo ngeen ñëw fekk suñu du ñu fekk si yàq seen essence yàkk seen crédit di ñu woo fu ngeen toll wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla aw ma seen fay maa ngi leen di ñaanal di leen sant di leen gërëm di ñaan tele bi yàlla na jëm ci kanam yàlla na jëm ci kanam ñu bokk ko ah moom itamit lépp lu mu ñu ñaanal nag ñun tamit dañuy delluwaat di ko ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi mu gën a uuf njaboot gi gën leen a mën a sàmm bu baax a baax ci biir euh, Feeling Dakar TV chaîne bu mag boobule biir réew ak biti réew ñu ngi leen di kontaane bu baax baax di leen jaajëfal di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah di jaajëfal moor mi nekkoon ci cadrage bi jërë ngeen jëf del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info